PSE 2035 limitam. d'accord xam nga ak loo ñu ji ñetti mandat ñeenti mandat xanaa 2035 xalaatoo ni dinañ fi nekk. président Macky Sall dina ko maa ngi ñaan duma ngi ñaan dara laa leen man kay samay pexe samay pexe bu jubee suñu parti moo fi toog ba date boobu kon jeex na kon moo tax man duma leen weddil dara léegi li ma la bëgg a laaj foofu mooy euh, beneen hmm. aussi wax nga candidat nga ci ville de Dakar hmm. mais je pense que pas par ñu voté ñu nommé la fa par décret non parce que lu ñuy ruumandaat la aussi. non non ruumandaatuñu man dama ni. par décret te non cest à par décret. dee par décret sax man ma bokk. ok dama lay wax bu fekkee par décret la wax dëgg yàlla. Mhm. sama ngor mais mën naa ko wax sénégalais ci télé dinaa ne ko président utal keneen. mais bu fekkee xëccoo la. la dem gis sénégalais la. très bien boobu bokk na. ok loolu am na solo léegi. xaaral dama am ay question yu ma bëgg a gaaw parce que heure bi aussi. voilà baax na ñu xam nee nga li may wax bariwul. Mhm. président dafa commencé acte trois. Mhm. mu war a am finalité. ce que dafa am raisonnement bu ñu war a egg li tax ñuy xalaat capital te du yam dakaar rek jàpp naa ni que entre dakaar ak jam ñaajo mbébét bi ci président am ay district la war a nekk. Mhm. mairie dakaar tey du fay mbalit du fay courant te pourtant am na ay tax man li ma gëm mooy est budget boobu 54 milliards ba leneen ñu renforcer ko communes yi moo tax ma wax la li ma lay wax. Mhm. li logique li logique. mooy ñu renforcer communes yi ça veut pas dire ni ko bëgguma nekk maire Dakar. mais nee naa la bu nekk quoi nañu renforcer. décentraliser décent non non surtout décentralisation ça veut pas ni que dama bëgg a nekk maire Ngor ay emploi non ni ñuy dundee lañ bëgg a changer. organisation bi ni ñuy dundee c'est-à-dire mënuñu dëkk Ngor. am budget à peu près 3,4 milliards ca du impacté waxuma pour ñu wut ay emploi mais amul responsabilité mais ni ñuy dundee ak environnement bi ñuy dundee 3 milliards 500 yi war na ko mën a impacté war na mën a changer. ni melokaan bi. war na mën a changer répartition parce que Ngor mooy commune bi gën a riche ci Sénégal. ok accord euh, fi nga jógee aussi muy ministère du tourisme. dégg mm. nañ fa ay coow ay nit yoo xam ni dañ fa doon yow yaa leen fa embauché woon euh, ñu jëlee leen fa euh, lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñeent. Mm-hmm. yëg nga coow boobu. waa bi ma nekkee Londres laa ko dégg mais damay wax ni loolu amul man en tout cas. gis naa benn communiqué am gis naa benn article buñ benn bind ni xaw man ki ma fa jiitu ak ki ma fa uutu ñoom ñaar ay xarit lañ xaw ma loolu bu ñu ko defee def nañu fi naar fekk parce que man lépp lu ma def mën naa ko assumé ministère amul vocation wu recruter agence yi ñoo am. vocation ay chauffeur ak ay kii xaar xaar moox la. yooyu kay non la dama lay wax rek pour te dire ni que li ñuy wax amul man bi ma fa ñëwee ñi ma fa fekk ci ay contrat ñi ma fa fekk. ci ay projet de développement touristique yàlla laay jël seede ak ñi ma doon liggéey ñëpp laa fa bàyyi xooluma kii kii ma ko fi indi xooluma kee moo ko fi indi li may xool mooy que ay sénégalais la. am na ñu fa indi aussi non bien sûr. li ma def. ba mu pléthorique ba mu nekk loo xam ni dafa dafa jéggi dayoo. non man li ma fa recruter man sama bopp bi ma fay nekk li fa dage bi recruter matul 17 personnes matul 16 per 17 personnes. 84 la ñuy wax de. mais moo tax ma ni la ñi koy wax waxuñu dëgg bu fekkee ni que ministre yi ñu wax ñoo ko bind waxuñu dëgg sos nañ encore une fois ci buñ bëggee buñ puus nit ñi ñu wax parce que wax nañ ko ñuy cell ñenn ñi def ay. puus nit ñi ñu wax ci lan non non c'est-à-dire bu boobaa man dinaa génne contrat yi ñu fa signé li ñu def mooy ñiy bale ñi fa fekk ñuy bale entreprise bi ñu fa fekk ñuy bale. laa ni nañ leen signer contrat moo gën ñuy jël intermédiaire mu leen di fay parce que xel nanguwul man nit laa je suis humain cest à entreprise jël la di la fay cinquante mille ci entreprise bi di facturer état bi soixante mille di facturer état bi cent cinquante mille ma ni jël leen contrat yi ngeen signer ko ñii ñu nekk ay agent ay contrat à durée déterminée contrat yi jeex na moom renouvelé wu ko c'est son mais bu ñu nekk di yàq deru nit ñi wala ku bëgg a def leneen nga dem def leneen mais toog di yàq deru nit ñi naan recruter na kii recruter na kii effectivement am na ay programme de développement touristique ay programme de développement yenn yi ci secteur digital la leen agent de nettoiement la ñoom dem jëli entreprise lañ gisoon muy jël yeneen ay jeunes sénégalais wala ay jeunes ay ay nit ay di leen fay moitié li abi di fay parce que entreprise la day am kii moi j'ai demandé à ce qu'on recrute directement pour que quand li ñuy am man a yenu maanaa parce que ay nit lañ mais keneen ku fi wax leneen 84 personnes amu fa loolu li ñuy wax noonu mënut a nekk et bu fekkee ni que ñoom ñooy def communiqué di wax loolu mais je vous dis ni li ñuy wax amul te ñu ko waxee ils sont bu fekkee ñoom ñoo ko wax loolu mooy dëgg. d'accord euh, jërëjëf Mame Mbaye Niang mu nekkoon euh, émission faramfàccee bu ñu la doon dalal mais dinaa la bàyyi ci euh, ay minutes. nga def mhm. bu fekkee am nga message boo xam ne bëgg nga ko bëgg nga askan bi. waaw di di la remercier surtout tamit di remercier ñu ñu doon seetaan jàpp naa ni waxlootu nga ma fexe nga ba génne ma mais def naa sama kéemtulaay kàttan pour war a pour bañ a wax wax ju ñaaw. Mhm. ak pour bañ a wax tamit lu dul dëgg. mais damay woo ñi ci jiitu mooy ñi ànd ak président de la république partem woo mouvence présidentielle bi woo sénégalais yi ci ñu jàppale président parce que soxla na ko fii ñu jëm nii ci jubbanti gu metti lañ nekk buñ bëggee pérenniser mooy maanaam buñ bëggee dëgëral jéego yu bari yi ñu def mooy il faut que ñu nangu ay lay nag am na ay sos am na ay wax lu dul am am na xëy na ñu waroon a taxaw taxawuñu mais sénégalais yi ko fal lay ñaan ñu taxawu ko ndax soxla na ko du dafa mat dafa matadi waaye nit kuy jëf bëgg nga jaajëf bu fekkee ci ñi mu tànn am na ñu ci am taxawaay boo xam ne rafetlu wuñ ko ñu jàpp ni que du moom mais ki mu tànn la. Mm-hmm. mais di ñaan tamit ñu jàmm am ci réew mi. Mm-hmm. ñu def suñ kéemtalaay kàttan ñu bàyyi njariñ li. gisuma ci sama bopp ndax réew mi gis na ci boppam rek moo am solo sénégalais bu nekk def li nga xam ni mën na jëmale réew mi kanam sénégalais bu ci nekk xalaat loo xam ni mën na jëmale réew mi kanam sénégalais bu ci nekk di jëfe loolu defe naa loolu moo ëpp njëriñ jërëjëf